réew mi nga xam ne ni bu ñu sukkandikoo ci ANSD 74 pour cent yow jël ñi seen at matagul fanweer ak juróomi at bëri nañ fi lool loolu tax ba at bu ne ñu bëre ñooy laaj liggéey loolee tax ba nguurum Sénégal di amal ay initiative yu bëri ngir politique jeunesse. c'est important que tey ñu jël suñu responsabilité au Sénégal munoo am benn réew boo xam ne 75 pour cent population bi ay xale mooy de cinq ans nga nga nga gumba ci en lépp lu ñu defoon ñu xam ne euh, ñu xeeb ko ñu xam ne war nañu def lu ëpp loolu. ngir mën a saafara xëyu ndaw ñi. ay projet ak i réforme la ñu tëral ci cadre programme PSE priorité jeune. xaatim nañ ci euh, presque ñaar fukki projet projet yoo xam ne suñ ko mettre en œuvre dina régler lu bëree bëree bëree bëri ci problème mu si waaye aussi ñu identifier ci ay réforme maanaam ay coppite yoo xam ne ci wàllu doxalin dañ ko war a def. loolu tamit ñu yaakaar ne suñ ko defee dina am ay solution yu am solo. ñu xayma ko ci trois cent soixante deux milliards. projet yi war nañoo créer lu toll ci quatre vingt mille emplois. Sénégal aussi est un Sénégal nag am na ay ressources yi nga xam ne ni mën na tax ba mu financer yile projet te sax am nañu ay partenaires ya nga xam ne ni ñoom la ñu lëkkalool te ñu bëri si ñoom joxe nañ seen i kàddu pour jàppale ñi ci yi la projet. rapport final bu tukkee ci yi la daa ñu ko jëbbal président de la république ngir mu mun koo saytu balaa ñu ko jëmmal fii 2028